Borom nugum nugum, mo nga sa biir, sa xabdu, mo nga sa borom nugum.

am nañ ci benn cas bu jóge bitim réew mooy importé. ah bitim réew. waaye am nañ ci. ah bitim réew mënuñoo taal bitim réew nga xam ne ay cas communautaire lañ. cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fi ñu ko jëlee walla. waaw ki leen ko hmm. nag seen lim la tëddee. ñaar fukk ak juróom. Eh, eh, eh, ñaar fukk ak juróom. seen juróom jox ñu ñaar fukk ak juróom ñoom ñett mariste. waaye na ñu toog nag. juróom-benn ci daara. nan wàññi dara dara ji nag ci Bambey. Matam ak Mermoz. ndax mbas mi dem ñeent ci Diourbel. Wokam ak Thiès. Eh, eh, eh, taxawal kaa yi nga dégg ma koy. ñeent ci daara may ma distance may ma distance. Fass. yow jàngoro ji yaakaar naa boo ci jógee dana law. ñaar taxawal rek. ci ban résidence. taxawal loo bëgg taxawal Kédougou xaaral tuuti rek. nga nga mi. xaaral ne nga wax ne xaaral mbay ma jaaga yow da nga dee bi. moom jàngoro ji bis boo ko yore dëkk bépp yor ko. yow ndax doo toog. ci loo ne nii corona waaw dafa na ñuy bay ay cas ñun dañoo mel na ñuy bay ay cas bi. taxawal 72 cas contact. taxawal rek jël ay matuwaayam. dawal dawal laalal laalal nugum. ba baax ëpp na la moom bis boo a dalee li ma mën a wat ci yonent bi dëkk bépp am ko ndax doo toog fu ne ngay lëfar lëfar yi dem li ngay dox lu mu xam nga tubaa ñaata lan joxe ren. tey tey ñaata kaa ci Touba. jox nañ ne vingt cinq waa tubaa képp. Touba vingt cinq vingt man moom tubaa tubaa Touba ma ci gën a ñor dagam fi la dëkk ñun ay waay na nit fexe bay masque wu nugum ñun ay murit lañu. Hmm. gëm Serigne Touba. Hmm. gis nga sunu kilifa gi Serigne Mountakha. Hmm. ni mu xeexe jàngoro ji. foko gis ma nga ko maska juma ji do fa dugg te tokkoo masque laaloof sel ay ngir ki way nan maska wu ta yalla tax ndax jàngoro ji dem may man dama sonni ci maska yi may ma distance jambar nga man wax lépp dëgg la may ma distance man yi may ma distance ba nopi may ma distance xam nga corona lim fi bëgg jëlé la du dul lan la fi bëgg jëlé jëlee saafonte nuyoo eh bëggé sam waji gi gis naa gis xolal bo ma ne bëggé ma xolal bo ma bëggé tudé bëggé la fi bëgg jëlé jëlee ne bu ma bu ma kottati man te àll ba ba ma kottati de. saafante daal la fi bëgg a jëlee te loolu moo mënta ne moom nuyoo asalaamaaleykum waaw bégee mënta ñàkk bégee waaw bégee xam nga nag jàngoro ji lee tax may la bégee bi lay tàppante lay tàppante asalaamaaleykum lu ko gën a màgg. Ah, baax na waxuma loolu waa Ndeye Arafo. Ndeye Ablaye Naar la defal nag Naar la wëri. Ablaye Naar man Ablaye Naar gàddaay na bi Ablaye Naar man. mën na mais gàddaay. gàddaay mété Balla Gaye 2 mu. Ablaye mété Balla Gaye yi. Ablaye gàddaay bokkut ak gàddaay Balla bokkun Ah, moom moom dalaa ba. Ablaye la bana la waxtaan nan avant muy dem ndax man ay yar as ndaw di kapp kappal di jëndi diw ak lu ne mu dugg ci. nga yàq xelam ba mu gàddaay. Ablaye Naar waaw gàddaay na. Ablaye Naar looloo tax mu ne daa mer dem. génn na kër gi Ablaye Naar na kër gi. côté yee nga yar fi moo la gën. berse almaay baal nga may tëkkale gi. ñoo la tëkkale ma dan laa gën laa wax gën. waxuma yéen a baax na mbay baal bu ñu waxee ngay ñolo ñolo ngi dema dépassé comme nday néew fi wari na Ablaye naare eh, yaay moo ko naaram nañ dem làkkante ji seen walay la mën a xataxam dur ñoo xam bëgg mu leer mooy damaa xiif te toogaay beeg wax ji laa moom dugal dem ci waa ñu indi añ bi ñu añ nga di baamtul li nga waxoon napp bi laa bëgg nga laal ko fii indi torsion bi ak ndox mu sedd mi indi añ bi ñu añ door a waxtaan yow maanaam foo foo man maa la jëlee la bañ m sama boy nga di maa maa la hébergé. baal hébergé. ah man nu ma koo baal loolu am na comme kañay sa am nañ kër baal maa la hébergé. dëgg la waaye da ngaa juum te dëkk bi fi mën a wàcc bari na. waaw dëgg la de da ngaa juum de da nga fay ñëw moo tax xam nga ku dem ci mbaarum tëgg boo awlu wutit mbaa boo defar wutit fornet faaw ñu teg la tax. ah d' accord loolu lépp dégg naa man de doo ma teg tax. waaw andi andi añ bi rek baal sa wax ci sama waay nga la bu ñu warante kon doo añ bu dee man rek doo añ. mbay ba doo andi añ. du ma ko indi. bis bu ma ko indee sa loxom di jor bee. du ci ah. dugg ba càmmoñ bi du tee ndab li. xanaa xanaa du tege fii. fii la ndab li tege te doo ah, ci. bisimilah loolu laay xaar xaar métti nga naan corona Ebola corona. yow yooyu la neex corona ak Ebola kilomètre gañ ku gañ baax na. ah, ah baax nañ ci ñoom ñaar. loolu du dara. bis boo corona dëkk bépp corona. ndax doo toog. سبيل لخدوم ورم نغم نغم مونغا سبيل لخدوم ورم نغم نغم مونغا سبيل قرب كن على رتني anim laay def. te nugum lan moo tax nga jaame door baadoole yow. doo nitu dara. mbay mais tegalaaj bi ñooñu. mbay xanaa ci biir jàppoo ne waxumoon nañu fonk mesures barrières yi. may naa la 1 mètre la may nan fii. Ah, ñoom ñi jàppale duñu la jox añ ba fondoo de. biir Cheikh Abdou doon nga sa biir mbooloom nugum nugum doon nga sa biir Baba Cissé la ilaha illallah ana Ablaye Nar Ablaye Nar xoole ko te naaree sëñ Fallu sëñ Kay taxaw leen an leen dara rek an leen ko gal mooy lan li ngeen yar kër gi dina kenn sëriñ bu baax la ilaha bay dugal dugal sama wëlëre nga waaye nag sëñ Fall sëñ Fall sëñ Fall sëñ Fall ba baare ba baare sëñ Fall sëñ Fall taxawle lii lay xaj lii lay gën a bañ sëñ lii lay gën a bañ taxawle rek ngeen tar rek la ilaha bu ma muur rek bu ma muur lii lay gën a bañ sëñ instant bi mu ne baale sëñ Fall sëñ Fall sëñ Fall waaw sëñ Cheikh Fall sëñ Cheikh Fall sëñ Cheikh Fall lii lay bañ lii lay bañ taxawle dal leen toog leen toog leen waaw booy. booy li lan la. booy te nga dem sa xaj yi bay. waaw booy non daa taxali ko yow. ah ba ah dama yaakaar ne. def leen nànk rek dal rek. boo demal waa demal danaa la woon Naar. fan booy xaj bi dana mat sa dënd bi. def dara maa ko yar maa ko yar def dara. te nga mooy dox xaj bi. tey su ma ko waxoon mu ñëw si yéen. waaye bu ko ko wax de maa ko boy bu la matt daw ko def ngay wax de te nga am xat bi dama laaj ko Balla Gaye 2 waay Ablaye Nar gàddaay ah bu ngeen waree ànd yow su bu ma la gis rek xaj bi laa la gis yow meu povo.